Supersonix Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex fii ba weeri di jeex waaw fii ba weeri di jeex mën nga am sansu win benn saaku maalo saa yoo jotee Gambia bàyyee ko sa UK Europe US Canada ak Switzerland ak Supersonix Money Transfer <laughs> xanaa lii neexati na doore ko tey ba weeri di jeex mën nga win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii si biir réewi Gambia bàyyee ko UK Europe US Canada ak Switzerland téeméeri saaku maalo ñoo fi nekk kon gaawal nga bokka si téeméeri nit yi nga xam ne mën nga am sans win si xéewal yi nga xam ne kenn dootu ko natable ak Supersonics Money Transfer bànneexu leen ci suñ yónneekaay xaalis bi gën a wóor gën a gaaw gën noppale ak yónneekaay xaalis maaga si biir réewi Gambia te duñ la fayeeku dara saytu leen si Google Play Store wala Apple Store nga mën a bindoo si app bi di Supersonic Money Transfer app shuu cay bii xéewal ak Supersonix rek taamala yonu gàddaay kii di Fatou Fall num def ba mucc ci gàllankoor yoon bu raglu xaaxaan xiif rëccute ak nammel ci réewam. soo nekkee si biir gaal bi li di nga yëg ay métit parce que ñun si biir gaal bi la ñoo nekk dëgg la gaal bi di nga fa feebar man maa ngi nii first day bi dama feebar full day lekkuma. bi muy dem kay moom fiil naa ko de ma xam ne xëj na dafa bugg a tekki moo tax parce que Europe moom soo gisee ñëpp di fa dem pour tekki moo tax. ni ma toogee noonu suma maa ngee neer gaal soo si nekkee sa kaa yaa ngee dem si jonni bu sori foog nga nekk di neer. surprise naa parce que moom dafa nekk nit koo xam ne nit yu ruskat la te ñemewut tamit moo tax man tam ma déggee kom dafa dem si yoon bi dëgg-dëgg surprise naa tamit suma xel bi tamit toogu toogutoon bu ma yegee nee comme gaal bi dem na te si yooni ndox lay nekk di dem. daa nekk maa ngi wuccu soona naa si gaal bi foos de moom dama over soona dama soona. dama fële faat faal ma dajee moom si tandiku la ma wax faafale ut fii ma ne ko fu ngay dem foofu léegi lay dem xanaa guddi bi daf dee métti moom trop suñu jigéen ñi. easy wut toon moom easy wut because eh, man moom man géej naa nelaw depuis dee bu di paatee mu dem. biñ génnee baara di dem ñu ngi am Mauritanie Mauritanie foofu la dem after gars yi ñu gis ne comme am na gaal bu am accident soo óorut pour ñu war ñoo bàyyi ñun tam ñu continuer noonu la ñu gars yi téye. métti woon na nag métti woon na torop xalaatoon naa ko parce que loolu mos nit soo juree sa doom nga yar ko. di nga xam ban façon ngi jikko ban façon ngi nit la. dajale neen xaalis foofu def neen li ñoo suñ mobile yëpp leen dajale pour jox ko gaay rek ndax ñu mun ñoo bàyyi ñu ñu continué. xeexuñ xuloowuñ saaguñ leen dañ fa nekkoon rek man moom jooyu ma defuma dara. waaye am na si ñoo xam ne ñu ngi nekkoon di jooy. lijjanti ko ci épisode bii di Tambala si sirisu gàddaay yuñ leen di indil koleel sa bët ci sa tele seetaanal ma Fatou Fall mu nettali ñu jaar jaaram dinañ leen ko indil fii si GTTV samedi. fukk ñenent si weeri novembre. fàttalekul ne Babylon mu ngi fi si Jolof waaye nag ci bokk gome taamala yoonu kàddaay. ala sayidina wa xabibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi alkiram mbokk yi tedd yi seetaan di seetaan programme bi nga xam ne moo di diggante di programme bu dina leen dikkee fii ci Gambian Talent TV ajuma ju jot ci waxtu le maa ngi leen di nuyoo ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel di nuyu ajaratu mi nga xam ne moom laa dendet di ajaratu Faatu Sàmb ñu koy ziyaara bu baax a baax a baax yéen ñëpp nag suñ leen boolee asalaamualeykum rek ñëpp ay dugg ci biir nuyu itam Moussa bu baax di ko ziyaar di rafetlu taxawaayam ci programme bi wande nuyu itam soxna ayda tabaarakallaahu ak képp koo xam ne rek yaa ngi liggéeyee ci kër gi di nuyu itam Pa Ousmane mi nga xam ne moo jiite kër gi le xam naa nag balaa soxna Faatu di ñëw nuyoo am na loo démb wax naa ko jëmale ko ci kilifa gu mag gi kilifa réew mi danaa ko bamtuwaat ndax démb dama demoon Banjul tak di ñibbisi romb yoon wi sama yaram daw lool ma yërëm trop xale yi nga xam ne ñi ngi jàng dëgg la xam naa dana am ustaas yu ne ma yërëmoo xale yi ci daara ji waaye maa ngi ñaan nguur gi luñ man ci taxaw am lu leen di yóbbu ak wàccee leen lu leen di delloosi ci wàllu mi nañ leen ko xale yi sonn nañ torop te amaana ñoom nguur gi duñ ko yëg seen ne ñu ngi seetaan jamono ji si Gambian Talents TV ah, dégg ngeen oustaz ni mu ko waxee mi ne su may am programme yu mel ni nii ah, maanaam damay léegi daal waaye oustaz dinaa la déedéet léegi wu parce que programme baa ko laaj kilifa bu mel ni yow man wax naa la dama la di rus oustaz ba nga xam ne sa dama di rus a ubbi di la xool loolu rekk la waaye nag bés ni tey defar waat naa taxawaay naa toog naa waa léegi nag moo ma nag. wax dëgg neex yàlla soo def ndaanaan yu rafet yi danga maa wax su ko defee man it ma siwli si def dagit yu baax. Ah, def euh, garaam manit yu baax comme bu takk jotee ngay wax say xarit ne dama bëgg a takk ñu ne la xanaa diw ngay takk diw bëgg na da nga ne diw sérieux mm-hmm. di maanaam diw sérieux ut. waaye si waxtu foo jotee nga ànd ak. waaw parce que waaye li tee mu la. Mm-hmm. di ko maanaam moom moo ko fooyee. Mm-hmm. moom da koo fooyee. moo tax mu foog ni kii fokkat la. te amaana lam ko naxee moo tax kooku gëm nii moo tax loolu tam jafe-jafe boobu dañ ko am. ba mu ba mu royaatal ci jigéen ñi nga xam ne ñi ngi sëy seeni borom kër sori xam nga am na ñoo xam ne fi fiñ foog ne àqi àqi maanaam àqi lislaam dañoo foog ne lislaam àqi jim jox góor joxut ko jigéen mm. ba da gis ko dikkaat ci waxtaan yi Fatoumata waaw yaa bi mhm. dama ragal nag nga toog ci jotaay bi te nekkuloo fi maa fi bu baax yaa ngi fi bu baax bu baax ayca bismillah kàddu gaa ngi noonu ci yow waaw oustaz di nga gis ne sëy léegi e, sometimes lu bëree bari di nga gis góor takka ki nga xam ne mooy soxnaam ba tey takka ki nga xam ne mooy jigéen ji nga xam ne bugg na ko lool waaye e, góor ji su dee nekku si biir dëkk bi di nga gis soxna si mu màndu lool waaye am na lu ñuy wax mbokka yi dafa am lu bari luñ dee yàqat si sëy di nga gis jigéen joo xam ne mu ngi liggéey comme euh, duma wax man sax suma maas maase waaye am na ñoo xam ne ñu ngi maanaam jigéen ji sëy di liggéey mhm. góor gi muy sëyal moom muy liggéey su amul sago wala góor gi muy sëyal te mu sori su amul sago rek dinañ yàquwante mhm. te danaa wax loo xam ne jigéen ñu bari daañ ma mereeti xam nga société bi fii surtout ndaw ñi fi ni ni mu génnee ni mu génnee ci maanaam déporté wu dugg ci mel ni xale yi dañ xaw dugg ci ñaay bi mhm. xam nga li ko waral mooy jigen dafa nekkon ko xamne mo don don rabatul bayt li ñu wax rabatul bayt maanaam ko xamne moy zere mbiru keur geek njabot te tey masalan Fat Fat sambu, amna na ay account amna na ay kër am na ay oto am ay nangam miskin bu mel alman Almansori du ko ñeme parce que daf naan kii moom moo ëpp kii du kii kii kii maanaam li olof di wax pañam bi xajut sama ron laal gi. Mm-hmm. su ko defee loolu day tax jigéen ñu bëri góori lislaam yi dañ leen di ragal dañ wax euh, ñi ne leen dem leen ngeen ubbi ngeen liggéey ngeen am parce que su ngeen. toogee fii seen jëkkër yi suñ amee dañuy dem utiwaat beneen jabar ñam na ngeen uti ngeen am loolu moo indi jafe-jafe bi maanaam tey góor gi na waroon na óoloo jabar ji du ko óolu xam nga li tax mhm. que l'islam dafa nangu jigéen wéet ak góor goo xam ne koc xarmalam la mu ne boosam nee na daf koy takk mm-hmm. bul fàtte ne jëkkëram dafa daf ko fi bàyyi bàyyi ko fi xaalis bàyyi njaboot dem bàyyi dem dem jàngi dem jàngi léegi mu ngi ci sëy waaye boosam nee na daf koy takk jaxasoo na te fi mu ne nii moom mu ne ma du ma la nëbb commencé naa bëgg sama boos ndax moom laa miin moom laa nangam gëj naa gis jëkkër ji moom laa miin moom laa nangam ma ne ko wax kon xanaa da ngeen nekkoon mu ne ma waaw ay la yéwén dee dañ nekkoon te nag léegi mu ne may takk ba léegi yow kan ngay jox toor fu nekk nii ki tukki dem xam nga tukki mënta ñàkk itam. oustaz euh, fii am na luy ñuul si sow bi xanaa boos bi xamut ne kii nekkut di mu ngi sëy. Eh, gis nga di ma la bëgg a xamal nag. ma bëgg a jox benn kee benn kee kees bu yéeme. Mhm. mos ngaa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam déedéet. mosoo koo gént gis. ay de yow mos ngaa gént gis yonent bi. ah du ngeen di nelaw du ngeen di tudd yàlla tuuti Moussa yow xam naa ay ñeenti yoon Moussa mos koo gént gis. Moussa tam Moussa tam géntu gis suma xarit bi géntu gis yonent bi. ah oustaz gisagul yonent bi de. dafa am koo xam ne benn imam. Mhm. imam bi. dafa tëdd néegam gént yonent bi ñëw ci moom mhm. Mhm. déggal de Fatou mhm. dafa tëdd néegam gént gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw ci moom Moussa nag ki kon koo bëgg da nga koy sutural bonu ma de waaye am na lu ma daal ba ma jëlee ci ëmb sëy bi may sëy ak yow wérul takk gi wérul ndax ci ëmb lañ ko takk waaye bëgguma sama famille xam ci dara ndax deru sama famille bu yàqu jaral na ma xaru jëkkër ji ne ko danaa la sutural waaye léegi kër gi yaatu na te man a yow fi dëkk da ngay am néeg ci kaw ma am néeg ci suuf buñ gisante ti bu kenn xam ne nag séparé wu nañ waaye buñ gisanteeti léegi buñ paree dana am ay kilifa yoo xam ne ñu am sutura la ñu doon ñu ñëw takkaat sëy bi mu ne ko doom ji nag bu juddoo sëñ bi mu ne ko doom bi juddoo bàyyi rek sama loxo doom ji judd mu yóbbu ko ci jàkka ji ba waa jàkka ji xam ne xale bu buñ sànni la mu indilaat ko ne ko kër dëkk bi yëpp nag dañoo jàpp ne xale nangam bul tas keneen bàyyi bul tas bàyyi keneen sa place. Mhm. seetal bu fekkee ne caaxaan la nga gérer ko ba ba génnee ko ci. Mhm. su fekkee ne nag farata la ah boobu mu xama ci pexe ndax sa jëkkër am na raay pour dugg ci farata. waaye daal sa nekk ca biti sa soxna juum nga fase ko ba noppi toroxal ko yàq deram loolu na ko góor ñi di moytu te gis nga ku ko ciy def itam ah. Mhm. képp ku uññi deru gor yàlla uññi sa der. te lu toujours islam maanaam sabab dafa yitteel lislaam te sababu soxna si juum mu ngi soqeekoo ci tukki góor gi moo tax tukki gii lim ñu indil tukki gii lim ñu indil musiba moo la xam ne musiba moo xam ne lan nga defoon si weekend bi loolu tam dafa tax jigéen ji du engage si dara waaye jigéen joo xam ne mu ngi nama góoram euh, si euh, si physical physical gisuloo sa góor euh, ba pare tamit du téléphone du dara. Mm-hmm. dafa ñaaw. man dama dee wane kër yaa koy design mu rafet. Mm-hmm. kër bu neexut dëgg la dañ dee wane si jigéen bi la waaye tam góor bi si la joxutee atmosphère bi doo mun a def loolu noonu yëpp so sëy yi nga xam ne. Euh, ñitti nekkuñ fi góor bi nekku fi mi te jigéen bi nekku fa yéen ñaar dangay ngeen a waxtaan ngeen xool noo leen a defee seen néeg mu neex euh, def néeg bu neex léegi fu mu nekk ñu ngi si taami internet góor bi mun na laa call video call ngeen waxtaan góor bi mun na moo dem restaurant beneen place yow it nga dem restaurant fii si Gambia sa jëkkër toog nga toog ngeen nekk si téléphone ngeen waxtaan comme ki nga xam ne moom it jëkkëram mu ngi fi yowit jigéen jooju noonu mun ngaa toog nga nama sa jëkkar call ko video call ngeen waxtaan oo nga ne ko tey damaa dem marché xaaral ma def la si line bi déglu lu maa jëna déglu man ak ñetti suñ conversation loolu yëpp si la bokk waaye tey nekk boobu di fi toog sax ko blame góor ni góor jàngee tëraay waaye lii ñi nga xam ne ñu ngi am jabar ñu nekk Gambia oo ñoo xam ne seen jëkkër yi ñu ngi nekk fu sori war nañoo am des boon bon maanaam ñu jegeñante si téléphone bi buy everyday bu nekka six o'clock da nga war a wax sa jabar da nga gis sa jabar moom te dafa am six bi dama war a wax suma jëkkër parce que ñi nekk bitim réew amun time duñ mun a nekk si téléphone bi 24 hours jigéen bu bugga loolu tam da ngaa sonal sa boppa mm. waaye at least war na moo am benn one or two hours boo xam ne di nga si mën a waxtaan ak sa soxna mm-hmm. di nga mën a xam sa soxna lan mooy problème am di nga even laajte sa soxna naka sa liggéey bi bu dee am na koo xam ne mu ngi ko faa kolaas jëkkër bi mën na moo advice jabar bi mooy tul ma ah, Moussa Fatou su dee sa boos dafa ñëw ne la tey sa rasta yi dee baax na hmm. xamal ne boos boobu am na lu moo séntu si yow loolu nekkul professional relationship hmm. jigéen xelam euh, mutut jigéen jigéen rek la da ngaa gis ku ñëw jox la compliment non tey yaa toj nga fa ne yow yaa fi toj fekk kooku bëggu dara si yow lu caaxaan ak yow soo soo amee sa góor mu nekk si sa life loolu daf laa dimbale bu baax a baax soo góor ñi nga xam ne ñoom ñoo sori seen jabar den war a boole yooyu si seen biir ba pare jigéen man dama ko dee wax all the time ñu ne sa jabar yàq ko waaye sa doom yaral soo amee jabar mu ngi nekk Gambia yaa ngi nekk bitim réew soo ko toppatoowul dina am yu bari yoo xam ne daf koo soxla daf koo nimse daf koo bugga te it gisul la nga jox ko ko waxuloo si dara kooku ne dafa fa ne yow kiyaare na loo maanaam amuloo itteem su dee mënuloo ko def sa expérience sa jabar ah man de suma liggéey bi de mu ngi naxari waaye wallahi azim ñaanal ma man dinaa ami ji alal benn bés ah, soo ma ñaanalee nga jàppale ma nga téye sa boppa di nga toog ba nekk fi ma nekk nga jox ko promise yu mel noonu dina gis jigéen bi dina dina nekk di nim se ne ah soo jëkkër ëllëg dinaa ko diga oo oh, gannaaw ëllëg dinaa ko diga waaye yii yëpp du dee faral di am ñu bari ñu ngi maa seetaan soo leen laajtee kan leen laas wax ak seen partenaire bariwut mm-hmm. bariwut bariwut am na yenn góor yoo xam ne tey sax balaa ñuy tukki mos nañoo am ak seen jabar doom ba seen doom yooyu depuis bu papa bi génnee si biir Gambia amatuñ nim si papa. xamatuñ papa. xamatuñ dara si seen waajur bu góor lan moo ko waral sa waajur FID mi ne la dama busy dama nekk si meeting oo sometimes ñu ne seen booy yi ñoo ñëw dañoo lekka am na yeneen yu bari yoo xam ne jigéen su ko amutee keneen ku mel ni ustaas ñëw di la waxtaanal wax la wax yu ne jigéen bakkan jaama la bëgga. Mm, wa de waa ku mel ni Moussa ku mel ni Moussa. waa ku mel Mm. so oustaz lii yëpp dafa am solo bu baax a baax si jigéen si néegi sëyam oustaz sëy dafa metti mm. su ma ko waxee xam naa ñeneen dina ne xëj na sëy na mm. ñeneen dina ne xëj na sëyut waaye at least lu mu ndaw di ka ne ñoo ñu sëy lu ndaw ndaw xam ne tuuti si néegi sëy suñ si duggoon tam dugga neen si benn fan oo ñaari fan oo ñetti fan oo ba léegi sax ñu ngi si biir mm-hmm. waaye di nga gis ne sëy métti bu mu métti ak bu mu seetaan bu fekkee amoon ñoom ñi ñi ñeme waaye boo ko junjee noonu déedéet oustaz leeralal leen sëy bu mu métti wuy ma ah déedéet oustaz xaaral rek oustaz ah sëy nga gis ne <laughs> yow mi nga xam ne yaa toog si sa kër mm-hmm. yow dimbalewuloo sa jabar jàppalewuloo ko xamuloo yan tolof tolof la moo dem si kër oustaz dafay métti. waaw Fatou xam nga ma dimbale fo dimbale fo gis nga gis nga li dafa am loo xam ne daf doon wurusu ngalam te dañ koy foye léegi. ndeysaan. maanaam loo xam ne or la woon te dañ koy foye mm-hmm. ndax sax amati na wala boog raar na muy mbëggeel gu gis nga coow li coow li yëpp loolu la gis nga couple boo gis. kenn kum ci man di doon boo amee lu la gënal sa na bii rek yàqu-yàqu dikk na. waaye bari na oustaz. te jamono jii am na koo xam ne jëkkër joo xam ne boo waxee diggante ak yàlla am liggéeyam moo ko gënal jabaram. am na jabar joo xam ne liggéeyam moo ko gënal jabaram. Mm. am koo xam ne xaalis moo ko gënal néegu sëyam bi. waaw oustaz xam loolu koy waral. Hmm? Mm. tey nga amoon jabar. Euh, nekkuloo di am bànneex si sa jabar sa jabar fidi mu indil la fitna am na yenn jigéen yoo xam ne sa dañuy saaga seen jëkkër am na yenn jigéen yoo xam ne seen jëkkar du ñuy yàkkamtee dugga si seen kër parce que saa yi buñ fa duggee rek problème waaye am na yenn góor yoo xam ne soo gisee seen liggéey seen liggéey bi mu gënal leen euh, seen jabar loolu moo di waral soo see sa jabar instead of mu tegal la añ bi mu ne la oustaz tey saaku maalo bi jeex na bidon ngi diwlin bi defaloo fi dara yow mi nekk bitim réew nga kool sa jabar mu ne la xew bi am na xew bi am na dama fa war a dem dama war a joxe ndoole yow xooluloo sa góor euh, yan jafe la moo dunda si fu mu nekk soo ñëwee tamit si paari góor bi nga xam ne euh, jigéen bi nga xam ne mu ngi daw góoram lan moo ko dee waral góor bi yow soo ñëwee waaw Euh, ba léegi mënuloo maa defaral lii mënuloo maa defaral la oo oh, saay booy wax ak jigéen bi rek yaa koo wax si wàllum euh, yow xit na da nga am projet Gambia suma kër bi suma moto bi kër bi lan moo fa nekk di fa dox yow xoolaloo sa jabar ndax yaramam mu ngi mu ngi mu ngi ok sometimes jigéen bi sama mu kool la mu ne la dama feebar parce que yaa ngi busy uyuwuloo ko waaye nga toog rek sa um, you know kër bi fi nga nekk benn si sa luwaasi kenn kool la ne maa ngi kool sa jabar ba léegi uyuwut waaw ren bi ba léegi uh, fu mu nekk nekku di dox nu mu war rek nga kool sa jabar yow xanaa yow ren bi nekkuloo di jël xaalis bi ñii waxul leen sa problème kooku naka la moo uyoo ñooñu te mu ngi am problème am. Mm-hmm. soo yooyu noonu yëpp oustaz daf dee laxasoo gis nañ nit su amutee xel bu dal si lu mun a nekka du la mun a jox full concentration bi nga soxla. waa xam nga ne jigéen ñi itam ñoom neen ñooy yàqalante. si naka. maanaam tey gone gu jigéen gi sëy si ci kër gi yow nga am sa broda mu sëy moom yow nga toog ba mu yàgg au lieu que jëkkëram mere ko ci bitim réew bitim réew waaye yow yaa ko mere di ut wàlli bañ. yi mm-hmm. léegi yow yaa ko mere yaa mere sa jabari broda léegi nga fexe nag force sa jabar sa broda na ko mere bu ko xasee mere. ngay fexe muy gën a yokk di gën a yokk ba sëy bi tas xam nga lu koy waral tam mm. euh, jigéen yu bari ñu ngi sëy si kër rawatina seen jëkkër nekku fi dañ dee bëgg a nekk ak seen jabari seen seen seen jabari broda si Euh, man dama ko dee woo all the time te man dama nekk suma jabari broda si ñoom ñëpp suma xarit leen mu suma am ak kenn si gars yi xaar ma yàlla and kenn si gars yi mu ngi sey 19 years si biir kër bi kenn mu ngi sey fu nekk 10 years keneen mu ngi sey about 4 years mu suma am ak kenn xaar ma yàlla euh, dang dee gis dafa am fooy em ak sa jabari broda Euh, yeneen jigéen yu bari yoo xam ne ay ndaw leen dañoo ñëw sëy si kër parce que yaa ngi dem dëkk ji si sa njëkkee yéen a ngi dëkka soo ñëwee nga ne ko tey sa broda koolut ma tey sa broda liyut ma sa broda defalut ma lii du may may lii du may may xamal ne kooku noonu xool daf dee sot mhm. sa mag bu góor sa bu góor la yéen a bokk baay bokk ndey su la jabaram waxee ne kii du maa defal lii du maa defal lële yow tam foog nga attaque góor bi nga ne ko ah lu tax toppatoowuloo diw bu ko defee yow tamit sa sa bot yi maanaam sa yu ñaaw yi nga xam ne yow am nga ko jigéen kenn perfectut ku nekk dafa am gàllankooram mm. bu ko defee nga dégg yow tamit nga wax sa jabari broda gis nga kii saay bu ma ko koolee sax du ma dee uyu oo su ma ko koolee hello dama feebar ma ne kuy feebar du may jox baaneexi sëy bu ma soxla su ko defee yow jabar broda boobu euh, moom su déggee sista bi mu wax loolu sista bi dafa ne ah kon sa jabar nii la mel ah waaye ñun si kër bi mu ngi baax de waaye kii nekk nii la mel yow doo try nga ut leneen leneen ak leneen oo nga def lii léegi Euh, relationship bi sëy bu nga xam ne yow sa jëkkër nekkul fi yow ak sa jëkkër rek a war a nekk xarit waruloo see xijal kenn keneen mun na se bokka bat bokka boobu noonu yow ak kooku la bat na si sa digg sey bi kenn warul laa doxalal sa sey sa sey nu moo doxee yow ak moom la ba soo gisee sëyi bitim réew yu baree baree baree distance relationship yu bari nekkul di dox dañ si ebal koo xam ne bokkut si dañ am taat partner am taat partner te soo amee taat baat na day yaaxalu bari sa goro warut a dugg si sa sëy yow ak sa jëkkër boo xam ne fa sori sa goro soo ko munee may may ko soo ko munee toppatoo toppatoo ko sa jëkkër dóor la saagal xas la dama nga jéggalu nga waxtaan ak sa jëkkër. waaw xam nga man loolu laa xam nga foofu moom maanaam foofu dafay nekk fànn boo xam ne topic boo xam ne maanaam su diggante goro yi xam nga goro itam léegoo-léeg da nga ci gis goro yoo xam ne tubaarkal la waaye léegoo-léeg nga gis ci ñoo xam ne dëgg-dëgg. li ñuy teg seen yi doom ñaanuñ yàlla seen doom yu jigéen dund ko mm. te sa jabar yi doom da nga ko war a def ni sa doom ji nga jur moom it mu def la comme yaayam ji ko jur mm. ndax kii bàyyi ñëpp ñëw sëyal sa doom yaakaar naa ne loolu bànneex la mm. bànneex la war a doon ci goro bi moo tax ñu bëri itam ñi ngi am jafe-jafe waaye jafe-jafe parce que doom dafa jege yaay surtout ku góor doom yëpp a jege seen yaay waaye doom yu góor yi dangay gis ne goro bi itam foofu kii sëy si bu me bu ko yaay jëkkër ji meree rek boo moytu mer moomu dana jàll ba ci doom ji. waaw moo tax bari nañ ñu fase seen jabar te ñu ngi leen nopp ba léegi waaye seen yaay ñoo mënatul a ak seen jabar. waaw oustaz euh, si biir distant relationship ba léegi gis nga goro am na solo bu baax a baax si sa sëy euh, waaye dama di wax rek loo leen nettali rawatina nag góor bi lum la def dana di yëgal ba den soo demee am na yenn yoo xam ne dafa tout private. tey sa jëkkër bu buggut a ak yow si sëyin euh, tey yow mu toogoon sa jëkkër la si amul xaalis nga dem di ko nettali sa goro xëj na goro bi mu ngi muñ lu bari loo xam ne doomam sa defarul la defarul ko ko tey yow jabar jooju la ko doom bi di ko defar so yow soo toogee nga ne ah man de euh, sa doom ne ko di ma defaral dara ah every month mu maa jox jox 3000 dollars si kese lu ndaw loolu amalul ma benn jëre xëj na yow jëkkër jooju mu ngi laa sacrifice al mu ngee tiraay mu ngee ekkati xaalis dina la jox three thousand hit na yaayam five hundred sa yaayam amut ko yow soo ñëwee nga wax loolu sa goro sa goro dafa wax ne kii parewut ku sëy mhm. parce que moom mi nga xam ne moo jur doomam mu jël doomam jox la ko yow war ngaa mun a muñal doom jooju noonu parce que lu mun a mel at least sa jëkkër la da laay wax wax bu neex doom du wax yaayam yéen a sa teen wax euh, salaamaaleykum yaa booy waaleykum salaam rus sa moo dee dox si seen diggante lu bari. Mm-hmm. du wàllum comme laaj lu neex waaye sa jabar di nga ko ne xoni di nga ko ne bënëx di nga ko ooyee tur bu du turi jinne mm-hmm. at least loolu neextal la soo am na yenn si yoo xam ne especially distance relationship soo si xëjalee nit rek du dem rawatina na nga xëjal si friend nga xëjal si njëkke nga xëjal si peccar go du dem parce que ku nekk su yégee loo xam ne mooy xew si sa biir néeg rek daf la koo reetaane. waaye bëggeel gu dëggu léegi mu ngi am. bu baax. déet mu ngi am waaye ndax bu baax. bu baax. lan moo tax ngay gis nit ne bëgg na nit ba mu jaral ko lu bëri. Mm-hmm. suba nga gis ñi yóbbante koot. ci ci ci jóge ci par. pour waaw boobu boobu boobu mbëggeel bu déggut la. pour sëy bi tas maanaam déggut. takk ga neex na ngoro ga neex na ñi sëy benn at ñaari la at nga gis ñu yóbbante koot pour tas sëy bi. waaw yenn yu bari nag cat la. cat cat moom lu koy waral. cat daf dee mën a dugal si sëy si sama gis-gis. waaw xam nga cat moom yéen da ngeen ko dawut parce que cat eh, li koy dundal. Uh-huh. Eh, ci la ndaw ñi di dox maanaam li xam nga xam nga cat dafa am lu koy dundal. waaw am na lu koy dundal. léegi nag li koy dundal nag ci la nit ñi di dox. waaw moo tax ma ne la ñoo dee catu seen boppa parce que da gis ku am doom léegi léegi léegi léegi. cum dugal ko nataal ko. si lapitaan dugal ko ci internet bi. ne congratulations. kenn ku ne nag di xool doom ji di wax. oustaz lu dafa neex. day dindal xool waaye loolu laa la wax ne la nag waaye yàq rey nga xale ba. ndeysaan. gis nga ñi koy xool ñëpp. Mm. du bët yëpp koy jëg. ndeysaan te sama turandoo daf ne al aynu xaqun. Mm-hmm. gis nga mu ne bët dëgg la mu ne bu fekkoon am na lu mën a gën a gaaw dogalu yàlla bi ah ñu ne cat la te cat catu bët catu làmmañ am dogalu yàlla ni mu gaawee mm-hmm. su fekkoon am na lu ko mën a gën a gaaw dañ naan cat la mm-hmm. oustaz rimanal gars yi number si waaw number yi ñu mën a amee mooy seven nine four nine two one four seven nine four nine ñu ngi nuyu itam duudu duudu jeeju ah da duudu jeeju a du duudu jeeju la de ñu ngi koy nuyu moom itam mu ngi ànd ak ñun kon mbokk mu nga waxtaan bi tey eh, ci liñ ko ajoon mooy eh, naka lañ nit di def ba diggante mag borom këram bu ko soree ak bu ko jegee diggante ba di gën a neex léegi nag yaakaar naa ne bu ñu dellusiwaatee dinañ indi yeneen i tomb parce que fokk nag am na ku ne ma da war a waxtaan ji xàq yi maanaam jabar lu moom ci jëkkër jëkkër lu moom ci parce que bëri na ñuy xëccoo loo xam ne ñoom ñaar kenn moomu ko ca. bëri na ñuy sëy di xëccoo loo xam ne ñoom ñaar ba ba mu tas. ñoom ñaar kenn moomu ko ci xam nga lu tax mm-hmm. nga gis góor goo xam ne ak jabar ji xam nga leen di jotali mm-hmm. doo takk diw danaa takk diw góor ga moomut ko ndaw sa moom góor ga warta takk ndaw sayt waru koo aaye ga ci que islam ñëw rek ne ubbi naa buntu yi comme neex takkal di déedéet même ki amagul jabar am na koo xam ne takk jabar waru ko am na koo xam ne dafa araam ci moom mu takk jabar mm-hmm. waaw am na jigéen joo ne dafa xaraam ci moom mu sëy ñu takk ko am na koo xam ne dañ ko sopp ci moom am na koo xam ne dafa war ci moom am na koo xam ne dañ ko sib dañ ko sib pour mu sëy noonu na toog noonu rek waaw léegi nag bu ñëwaatee suñu beneen programme hmm. danaa la faram-fàcceel yooyu sëy duur ñëpp rek ñëpp ci yem degré de dafa am maratib hmm. dafa am koo xam ne waajib la ci moom am koo xam ne mandoob la ci moom am koo xam ne eh, te mandoob mooy mustahab am na koo xam ne makruh la ci moom am na koo xam ne xaraamun alayhi waaw mhm. am naa boobu next week oustaz euh, waaye oustaz leena moom laa bëgga ku góor ni ñu defal jigéen ñi am na ku ma wax last week mu ma xanaa yow yaay looya euh, jigéen ñi ma ne ko déedéet man duma ma looya jigéen ñi de wax dëgg neex yàlla parce que man ku ma xam xam ne góor ñi laa fara Mm-hmm. waaye dama bëgg a góor ñi ñu yërëm jigéen yi nga xam ne ñu ngi toog fii si biir dëkk bi Gambia dafa stress oustaz mm-hmm. yow yaa ko jógee wax bi ngay start di ne président bi mu jàppale xale yii dem school ak moto mm-hmm. uh, Gambia stress bu mu stress yow mi nga xam ne yaa toog bitim réew yow doo ko xam rawatina nag ñun fii ñu bari si ñun den féeg du ñëpp di nga gis nga kool faatu mi ne la xay maa ngi nii just éega suma liggéeykaay you know maa ngi si biir moto bi. nga wane ne yaa ngi ci fekk sax amuloo ko amuloo sax ku laa yóbbu taxi sax amuloo ko da nga doxee sa kër ba sa office parce que ñàkk a moto soo góor yi nga xam ne yaa ngi am jabar nga bàyyi ko fii benn jigéen bonut yow yaa koy bonal oo yaa ko wanut yoon bi mooy baax jigéen na ko boole si sa boppa wan ko ne yow maay sa jëkkër nga xool ko xool la kii solo mu dee solo all the time daf dee wane boppam solo yum dee solo du dee mut nu mu dee waxee dafa xaat nu mu dee waxee amut yar amut teggin nga ne ko dama bëgg a bébi nga dal sooy wax ak ustaas tey wasalaamaaleykum na nga def nga xam ne jigéen bi saay booy wax ak moom euh, naka la naka tontoom daf dee gàtta oo jigéen bi du dee wax ak yow wax bu neex oo ko wax ko bébi dama bëgg a ngay waxee nii dama bëgg a ngay waxee nele dama bëgg di dégg sa baat si yeneeni anam bu ko defee jigéen bi dafa improve waaye yow góor bi sooy daw jigéen bi yow góor bi soo amutee jigéen bi time am yow góor bi saay booy wax ak jigéen bi yaa ngi koy yuuxu Gambie dafa stress ñun ñu bari dañoo toog fii lekk doo ko am añ doo ko am reer doo ko am parce que yaa ngi dem liggéey soo wàccee kër bi nga dëkka xëj na yaa ngi sëy parce que tooguloo añ sa njëkke oo pecco go yu fa nekk parce que liggéeyuloo tooguloo añ bi nga xam ne ñoom moom leen tooga ñëpp a koo lekka te doo wax Fatmata uh-huh. Gambie neexut dafa stress waaye tukki tam dafa métti waaw tukki dafa métti oustaz waaw may ma rek oustaz déedéet oustaz oustaz déedéet tey foog ñu xuloo balaa ñu nga man dama déglu ba nga daane waaw ma de te tukki dafa métti de waa danaa la dog ko kon dag te ku tukki di dang-dangi am na ñoo xam ne lu mu uh-huh. sedd sedd dañuy liggéey uh-huh. lu mu taw taw dañuy liggéey ñu ngay dàqanteeg police yi ñu ngay àbbu kayiti jàmbur ñu ngay nàngam te dara taxut lu dul seen soxna seen yaay seen njaboot. Eh. ñooñu itam am na lu lislaam wax ñi jëflanteek ñoom de. yow xam nga ne liñ wax ci xàq jigéen yëpp ci jëkkëram xaaral bañ àgg ci loolu boo ko waxoon ñu ne kii dafa ustaas bi dafa xewi parce que bu fekkee góor gi nangu na nangu na li ko lislaam teg ah bu fekkee góor gi nangu na li ko lislaam teg ay jëkkër ji bu ay baqatam di génn nii xool yaa ngi may dégg ay baqatam jabar ji ñëw mucc ko sax dabagut àq yi ma rafetal ko xam nga gars yi dañuy xadis ba dafa ñëw ne ab taab ki nekk ci biti itam ni li nga wax ci muñal kii kële it lañ ko war a muñalee am na koo xam ne ab natt bu mu war a teg xam nga natt du farata natt mm-hmm. essu su xaw ma essu lañ ko mm-hmm. bu mu war a teg mm-hmm. loolu moo tax mu mere jëkkëram parce que dafa fekk jëkkër ji fay na lam waroon lam amee woon yëpp fayee na ko fay na néegu luwaas fay na nangam fay na nangam fay na xam nga fële bitim réew lépp taxi la mm-hmm. léegi moom yónnee na dépasse yónnee na nangam yónnee na nangam léegi waxoon nga ko ne suñ natt bi dee kenn ku nekk dafay teg 5000 mu ne la ah boobu dee da nag ma may fan yi ma lijjanti nga dog ko bu la koolee doo ko jël nga mujj ko bloc sa jëkkër di daw ngir yow nga bloc ko ngir natt boo xam ne amagut ko ndeysaan ah yow itam sa gars yi war ngaa wax ak ñoom de ñu ne fii mm-hmm. nañu bàyyi xel ñoom it ñu nekk fële xam ne ki ci ki kër gi ka ca naaj waa ko fa nekkal waaw ñu ne lu la okk moom a xuri ah, kon nag euh, oustaz dafa mel ni euh, time bi euh, jeex na tag man dinaa tàggatoo mm-hmm. ma bàyyi la nag parce que programme bi sa la nga eh, tëj sunu programme la <laughs> kon nag mbokk yi yéen a ko dégg TV saa yu mel ni lañ leen naa Euh, tey nag suñ thème amaat na solo bu baax euh, parce que euh, wax naa ko oustaz wax na lu am solo mu ne ma waxal jigéen itam ñu muñal seeni góor loolu nekk na loo xam ne lu am solo la jigéen ñi muñal seeni góor soo ko déggee saa su ne jigéen ñi war nañoo muñal góor ñi parce que ku tukki Europe lum la may bu ko ko xeebal ñaanal ko su ko defee liggéeyam muy gën a baax ñaanal ko su dee da sa jëkkër dafa la wax ne dafa bëgg a jabari tubaab ñaanal ko mu am jabari tubaab su dee sa jëkkër mm, ah, mm, dafa bëgg a am mm, waa ustaas ah, ah baax na ok kon nag mbokk yi foofu laay am ustaas emale na ma Moussa ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa jërëjëf Adja Fatou ñu ngi nuyu Samsudin bu baax xam nga Moussa ay da xam nga lu tax ma ne ko um dafa am koo xam ne jëkkër ji had the